amu euh, du sës parce que dafa am lu nga xam ni man lu ma yàggoon bëgg la même ba may bëre kii nu mu tuddati bombardier amu wax chaque fois su ma yàlla dimbalee ba ma cër roi des arènes damay wàcc ci suuf bëri xale yi parce que làmb ci yemul ci benn mbër ñaar ñetti mbër ñuy bëri suñu biir chaque fois que ñooñu mu lim tey daanaka ku nekk bëri naa cee moom deux fois loolu làmb rek dañ war ubbi teel a bëri moo tax ñu def ñu mag ci làmb mais ñun ñëpp ay morom rek man ak Ama Baldé ñëpp xam na ko bëri ba parce que loo xam ne làmb nawee la fi <laughs> ñu ko ay morom waaw ma mag yow ma ko ma ko magee benn ak xam nga ba tax na loolu man sama bëgg-bëgg la woon moo tax du ay sës sës dugaluma ci ay jël kii wala jël kii parce que amul ma yàkkamte yàlla la yaakaar teg lépp ci loxoom mais bëgg ubbi affaire yi affaire yi gën a yaatu loolu moo tax ma ne woon su yàlla dimbalee ba ma jël roi des arènes damay wàññi jël xale loolu loolu